man duma ñooñu de ñuy raam aana ah, duñ la tontu man dama lay tontu man dama lay tontu yow Amina Jaay yow basta bi idiot yow da foog man dama la raga nga ne kan nga traité ne ko su yow sa caapandey thirty ten times yow you idiot yow sa ndey anta xaw ma sow boobu noonu yow suma yaay gén ko foofu yoon nga ne suma yaay nga tudda yow boo tuddee yow may wax nga naa ma dóor yow suma number plate mboto jël ko 78 16 Amina Diagne invite ma fu ñoo tasee maa yow yow invite ma invite ma rek Amina Diagne invite ma xamoo ma danga may gis <laughs> allahu akbar kabiran yow yow social media nga amee fit nga toog di wax yow waaye yow man ma taxaw nga taxaw maa la sut maa la uppa wax nga naan ma sew yow su ma toogee sa kaw mbaa di nga waat yow ma mut ñetta si sa kaw maa la sut maa la ëppa hay yow fi ma xamee ne dangaa duul sa yow day déglu sa boppa sometimes danga day wax ba laal sa bi dootoo doo ko xam léegi-léegi nga wax ba ne man xaw ma la faatu ko maa musuma laa gis yow déglu sa boppa de ni ci den la dee ree soo parewaat nga jël nga sosal ma kon which which means li nga wax yëpp sos la xamuloo ma yow xamuloo ma looy wax yëpp sos la parce que xamuloo ma musuma waxtaan ak yow yow li ma wax ak yow si téléphone yoon sax ñetti yoon mutu ko ngaay maa yow si yaa Aida sam bi man salaa la doom appel nga bañ ma tegee la boor man salaa la bàyyi seetaana tuma la commenta tuma la dara salaa la bàyyi yow yaa ma forcé xam Amina Jaañ yow su ma dugalee dara vidéo yaa ma dee texte na ma seen mi send ma ko yow yaa ma forcé duga ma yow xam ma man idiot bu mel ni yow dama la xam nga naan ma man dama la musa wax ma ñëw sa kër yow daam raas dama laajte suma mbokk yi sax na man dama leen dee seeti ñëwal si koñ bii ma dëkk sa nga laajte ne seen kër yi dama fa dee dem man ku ma gën a gàtt tànka amut yow mun na duul sa kër gu xesaw gu ina gu nga xam ne bodafel ñu fa war a ñëw pompe si nga ma wax naan ma man man Amina Jaay yaa mun a duul Amina Jaay yaa jël certificat bi dawa moom wool kop yow yaa ko jël si fen ak duul ak sos Amina Jaay nit yi nga sosal Facebook bi di yaxa seen der ah di yaxa seen personnalité seen dignité Amina Jaay yenn la yàlla yaxa Amina Jaay lépp der boo teg si doomi aadama yenn ko yàlla koppa si sa boppa bi si barke salaatul fatiha barke laa ilaha illallah seydina muhammad rasulullah Amina Jaay képp ko musa tooñ Facebook naxaral ko teg lu bon si deram yenn ko yàlla koppa sa boppa bi sa boppa bu rëy boobu ni mbuka sa jëbi ni ni ni ni football sa gémmiñ gu yaatu ngi ni paani pot yu weñ yu mag yooyu noonu ak sa bëñ yi ni rato yow sa bëñ yu tilim yu yëro yi yow ñëpp la jéppi yow soo déggee nit yu bon yu ñoo wax si yow sa ne bu ma la faale yow di nga xam sa boppa man soo déggee ñu am dignity ñu am classe ñi ma nekk di kool di ma texte di nga xam ne ah yow maa la gën a nekk góor maa la gën a set basta bi idiot bi you damn rats.